ñetti canalisation yi nga xam ne dafa traversé autoroute Mbacké bi fi tolloo quartier darul manan askan wi dañoo xëy doon sakk canalisation yooyu le li ko waral moo di ndox mi fay bàyyeekoo dafay versé wu ci seen biir kër yi ak seen quartier bi. képp koo xam dëkk nga biir Touba xam nga ni fii ndeke jekk ndox la daan mel léegi ndox mi fi daan nekk anamu. ku ne xam na ni bu demul wersiwul fenn ci biir kër la jëm suñ biir kër yi la jëm lii nag buñ jàpp ni dañoo jóg rek tey ngir def lii depuis trois mois ñi ngi ciy dox kilifa gu ñu xam ni buñ fa demee jàpp nañ dina ko saafara dem nañ buñ fa demee kenn du assumer ay responsabilité am biñ demee ba sonn barki démb lañ njëkk a génn ñu ne ñu dinañ ko defar boobaa léegi gis nga démb ku ne gis na ni taw bi mel ci la doxe suñu kër yi nit ñaa ngay génn amuñ fenn fu ñu jëm askan wi dañ fa feesoon dell daal di baare tali bi ngir fatt canalisation yi lée lu nu mel nag taxoon na ba bi ko commissaire bu Touba yégee daal di ñëw ci bërëb yi ginnaaw bi mu defee ay constat ci leen xamal ne kilifa yi daañu ko saafara waaye nañ jugee ci bërëb bi lee commissaire bi mu dikkee daf ñu fekk laaj ñu commencé ko expliquer biñ ko commencé expliquer mu gisal boppam xam ne lii métti na ci xol mënuñu nan leen dem ñu toog ñu waxtaan trouver solution biñ demee ñu toog waxtaan ci lay doog a xam moom dafa jàpp ne lii dafa am fu mu ci lañ doog a dippaan ma xool ko ni lii nii c'est pas normal lii du yoon ci lañ dem ca ba moom bi ko xoolee sax moom it daf ci am mbetteel ndax yaakaar ni ñun dafa yaakaar ñun dañoo mobiliser wu rek ñëw ngir yàq ak leneen ak leneen ci la doog a xam li nekk suñu xol mënuñu dinañ ko saafara c'est urgent askan wi yeewoo ci quartier Daaru Manaan ci Touba Mbacké mbir yi métti na leen lool lu mel nag tax na ba ñoom 24 heure lañ may kilifa yi ngir ñu saafara ko. léegi nag ñun dinañ leen may vingt 24 heures ñu defar ko ko defarut ñu defaral ko suñu bopp. ñoom nag ñu ngi toog di xaar kilifa yi ndax li nga xam ne moom lañ diggéey dañu ko def waaye laatay boobu askan wi di wéy di xuus ci ndox yi ngir tàbbi ci seen biir kër yi